فلبيك يا خدني ولبيك يا شوق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خدني ولبيك يا شوق لقد لمست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق وبنى بها صدق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق دعاني شوق منك مصدره عمق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 mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala dellu di julli di sëlmal ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñoo ngi amaan mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaay bii di xamtu. ila نعم البرق فلله أيام الصفاء وأنسها فأطيافها حلم وأحداثها حق فأطيافها حلم وأحداثها حق دعاني jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd ak ngeen ñun jotaay bi di xamtu ñu di ko amal ajjuma ju jot bu 16h jotee jàpp 17h ngeen ci ànd ak seen mbokk Mbacke Sylla mbokk yi xel si FM seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullah nuyu leen bu baax leen tatagal leen jiital ci nuyoo bi ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal nekk fii ci kër gi te ñu ànd ak ñun liggéey bi ndokkeel leen rawatina équipe bu diine ji waaye itam noonu la ñu ndokkeele rédaction bi ndokkeel ñi nga xam ne ñoo ne ci administration bi noonu la ñu nuyoo itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci région yi te nekkal fa Sud FM seen rajo ci euh, station régionaux yi di leen wax ñoom ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah ak auditeurs yi fa nekk te di ñu déglu foofee kenn ku nekk ñoo ngi lay wàccee sa wàccuwaay te di la nuyu di la siyaare bu baax a baax jotaayu xamtu ay laaj lay doon ak ay tontu niñ ko baaxoo defee ajuma ju jot ñoo ngi ci ajuma ji nga xam ne moo mujj ci weeru saxbaan maanaam weeru baraxlu wi dëgmal nag weeru mag wu rëy woowu nga xamante ne mooy weeru koor di weer wi nga xamante ne mooy anniversaire u alxuraanul karim waaye ci lañ dooroon xamtu mu dib anniversaire am mbokk yi ñuy bàyyi xel tey békki jotaay bi yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum yaaye xamtu dooree ak léegi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare asalaamaaleykum maam kenn ci am nuyoo baa ngi noonu maam Ramatulaay Baaji Baay Moodu Jaxate bàyyi xamtu yi ci la bokk ak euh, càmmi ñi xamtu yi ñoo ngi leen di nuyu baax a baax wala boog xale yu góor yi nga xam ne ñoo bokk xamtu jigéenu xamtu yi soxna Ndey Kamara nga Amérique soxna Adja Boy docteur Ana Dia mi ngi fii ci Ndakaaru ci jigéeni xamtu yi la bokk di ko nuyu bu baax di ko asalaamaaleykum wala waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk nuyoo yaa ngi noonu ak siyaar yi xam naa bu ma ca noppee laay door a dugg ci marché yi boole rëpputal jaar fi ma war a jaar fépp ci wàllu nuyoo waaye dama lay jox laaj bi te ñu laaj bi ma lay njëkk a jox mooy wan saar ci alxuraan moom lañ tuddee benn ponk ci lislaam saar woo xam ne boo ko tuddee rek benn ponk lay doon ci ponki lislaam yi saar woo wan la ñaareelu saar yi mooy danga may wax saar bi nga xam ne dafa tàmbulee ci sóoratu am na xamante ne dafa tàmbulee ci suura suura bi nga xam ne dafa tàmbalee ci suura saar woowu wan saar la ñaari laaj yooyu laa lay indil li ci des nag ñu dem ca ci 88 628 98 98 33 841 22 33 ñi ci marché yi te di ñu déglu ñoo ngi leen di nuyu baax a baax Birahim Ndiaye marché ti leen asalaamualeykum Ablaye Mbaye marché Castor asalaamualeykum Aji Mayoro Fall cité Fadia asalaamualeykum Abdoulaye Mbaye marché fij miic asalaamaaleykum sëñ Mansour Sall parcelle asalaamaaleykum aji busa marché police asalaamaaleykum buñ ci oto yi tey rëpputal jamono ji moo xam seen yosi bopp la wala taxi yi laam tataaye car rapide yi njaganjaay yi asalaamaaleykum pro yi te nekk fa di bind ka maas ak ni ca liggéey ba di xaymaaka calcul yéen it asalaamaaleykum ñi ci comptoir yi taxaw di yaxantu asalaamaaleykum mbokk interlocuteurs yi menuisier yeeg menuisier métallique yeeg yi nuyu nit ñun baax siyaar leen ña ca daara yi jamono jii tey ànd ñun jotaay bi asalaamaaleykum bokk mi daa bëgg bokk ci jotaay bi ñu daal di koy dalal te wéy salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu sëñ Modou Dia sëñ Mbacke Sylla def kontaan bu baax a baax naka waa Touba jaa bu ñu ngi sant bu baax. bisimilah Dia Dia. ñu ngi lay siyaare ci àjjuma ji. jërëjëf jërëjëf. ak mboolem auditeurs yi nga xam ne ñoo ngi bàyyi xel. jërëjëf jërëjëf Mouhamed. rawatina auditeurs yi. ñu ngi siyaare waa Kaolack yëpp. ndeysaan. daara yi sëñ Mamadou. jërëjëf auditeur ak auditrice lu leen wutale. auditeur mooy kii déglu. auditeur mooy kii déglu. waaw auditeurs yi mooy ku mel ni man xam ne saa su nekk muy kurkuri rek pour oote ngir euh, am mbégte ci jotaay. <laughs> Mouhamed looloo wutale auditeur ak auditrice. sama yaakaar. macha allah yow kat ndekete dégg nga tubaab. <laughs> jaar naa bu baax nag ñu ngi ñu ngi a baax doxin. jërëjëf jërëjëf. waaw di leen jaajëfal ak keroog daalul motti gi maa ngi doon jëm a duggaat la soxna sax waaye. waaw waaw defe naa ñëwoon nga ci kay maa ngi lay gis. waaw naa am na solo lool li ngeen ko développé ko. jërëjëf yàlla suñu borom gën leen a dëgëral ba ñu bëree bëree bëri mën ci dégg rek. amiin amiin ci yoon bi nga xam ne moom ngeen bëgg ñu tegee. amiin yaa rabbal aalamiin. barakatu rasulillah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Mouhamad wan saar lañ tuddee waaw suratu. hajj suratu hajj ak lan. waaw madaniyatin la. Mhm. mooy yaayaa naasu taqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un azimun. beneen bi mooy wan saar. mooy suratu nuur. suratu nuur. waaw moom it la mm-hmm. suratul anzalnaha wa mm-hmm. faratanaha wa ansalna fiha mm-hmm. ayatin bayinatin la'allakum tafakkarun jërëjëf ok baarakala boo fii ka sëñ Modou Dia ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Mouhamad Dia di nuyu waa Touba yëpp tey bëgg ci ni nga àndee ñun jotaay bi góor a jóoba ngi ànd ak sëñ góor a dellu woote salaamaaleykum aleykum salaam oustaz waaw sëñ Mor Sekum Jogo <laughs> ñooy lay ziar rek <laughs> jërëjëf Seck yaa ngi jàmm baax. waaw. ah maa ngi lay namm lool yaa ngi Alioune Mbaye. Mm, ñoo leen raw. sama xarit moom ñëw na déggante nañu. waaw ndeysaan. macha allah. jërëjëf Seck. Ah. Mor wan saar mooy saar yi nga xam ne dañ koo tudde benn ponk ci lislaam waaw boobu de suratul xaj la. suratul xaj nga jàpp. waaw ci biir saar bi sax suñu borom mi ngi wax naan wa asrin fi naasi bil xajji yaatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yaatina min kulli fajjin amiq wan saar moo tàmbulee eh, maanaam suurat bi nga xam ne dafa tàmbulee ci suura waaw boobu suuratu nuuri la man nga caa tuuti ma xool waaw suuratun ansalnaaha wa faradnaaha wa ansalnaa fiiha ayatin bayinatin laalakum tafakkaruun azzaaniyatu wazzaani fajlidu kulla waaxidin mi miata jalda wala taxuzukum bihimaa raxfatun fi diinillaahi in kuntum tuminuuna billaahi wal yawmil aaxir wal yashhad adaabahumaa taa'ifatun minal mu'miniin asaani laa yankihu ilaa zaaniyatan aw mushrikatan wa zaaniyatu laa yankihuhaa ilaa zaanin aw mushrikun wa hurima zaalika alal mu'miniin walladiina yarmuuna almuxsanaati summa lam ya'tuu bi arba'ati shuhadaa fa ajliduuhum samaaniina jaldatan wala taqbaluu lahum saadatan abadan wa ulaaika humul faasiquun illa alladiina taabuu min ba'di zaalika wa aslahuu fa inna allaha xafurun rahim jërëjëf Mor maa ngi nuyu soxna Safiyatu Diouf xam naa sa taalibe la sax sama xarit la sama jigéen a waaw kay macha allah maa ngi koy nuyu wér kay jërëjëf jërëjëf waaw na jërëjëf ma nga ca Malika noonu la ñu nuyoo waa Malika Palace sopp na bi Adja Njawa Diouf jërëjëf waa Kajamoor yéen it ñoo ngi leen di nuyu 88 628 98 98 waa Robina Thierno Ndiaye asalaamaaleykum waa Boun waa Malika ñoo ngi leen di nuyu waa ben barak waa yëmbal ak cité waa Kër Massar ñoo ngi leen di nuyu waa ñàgg ak ñàkku rab jaxaay salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah aja waaw Mbacke soxna Adja noo def booy. si la Maxtaar si la Maxtaar. ñetti yoon. nuyu naa <laughs> noonu la de si la Maxtaar si la Maxtaar si la Maxtaar. waaw waaw. bu demee bu demee bay tàggatoo bu demee bay tàggatoo danaan waa kon oustaz ñu def noonu. <laughs> sama jigéen boobu ah, sama jigéen boobu man moom moom laay wër. naa la bu baax <laughs> jërëjëf jërëjëf booy. nuyu Ndeye Camara bu baax. Ndeye Sane Ndeye Sane ku baax la. nuyu groupe sama xarit bi di la amul morom kenn gënu ko macha allah sang la kay sang la ndeysaan yal na yàlla defal ko jàmm amin amin yaa rabbal alamin di nuyu Baye Modou Diakhat di nuyu sama sëriñ Mansour Sall bu baax jërëjëf jërëjëf ndeysaan di nuyu Baara Curaay nag sama càmmiñ bopp jóg bokk ma kaa kenn sa càmmiñ ndeysaan borom di burigo ndeysaan ndeysaan <laughs> di nuyu ñëpp di nuyu waa xam si ñëpp macha allah jërëjëf jërëjëf booy di kontaan ci waxtaan bi bu baax a baax a baax ndeysaan bëgg nañu lool naka waa foofu yéen a ngi waajal koor gi ah waaw koor bi day ñu dégg naa kooruk Amérique day xaw a gudd heure bi day gudd. ñu gudd sax nag. yow lan ngay gën a def boo boo wooree mar wala xiif. ñëpp ah, rek. ñaar yëpp ngay def kon boo wooree yow da ngay xaw a naqari deret kon comme man. waaw hi waxuma naqari kay waaye fànn biir def. man de man de man de damay ñàngal di xuloo sama téléphone bi rek. fekk naa def bi. léeg nit woo ma ma naan la boo mënta wax ci kaw kay nga coupé. ah déedéet tamit nag kenn ko tey de dama ko du tey de dinañ ma comprendre. waaw ah, jërëjëf Adja. waa bu baax waa kay Oustaz dama wër dama duggal jërëjëf jërëjëf. jërëjëf soxna Adja booy ci suñu jigéen yi la bokk bokk ci groupe sama xarit yooyu maa ngi koy nuyu soxna Ayda Gueye nga Italie moom it moom soxna Xadi Ba Adja Seynabou Diagne nga Espagne soxna Daaru Diallo ngi fii ak Adja Seynabou Tall ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare bu baax a baax soxna Xawa Mbacke nga Jurbel soxna Bintu Jakebe maire salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam. bisimilah bisimilah. Oustaz maa ngi siyaar. na yàlla nangu siyaar. Abdou Salam Guèye. Abdou Salam. Guèye Dalifor. Abdou Salam Guèye naka waa Dalifor. ñu ngi laa dëkk nag géej gi ne laa dëkk waaye Dalifor laa nekk. ah ngi neew lu say kër nekk waaye Dalifor ay tool. waaw saa su ngeen dem ci conférence bi ren may romb. dëgg la kay. waaw loolu tax nag tey ma woote man moom soo gisee may woote damaa bëgg sama xaalis dugg ci xamtu rek. ndeysaan su ma jot rek su ma damay woote. dëgg la dëgg la yàlla yàlla fay. waaw xam amiin amiin waaw. maa ngi lay ñaanal bu baax maa ngi ñaanal ñëpp. ñëpp bëgg nañ ci yow. waaw jërëjëf jërëjëf. dëgg la lu dagg lu ne moroomam lay wër Abdou Salam. waaw waaw waaw dëgg yàlla loolu rek a tax may woote man daanaka baax yal na yàlla fay la ko. jërëjëf jërëjëf dëgg la jërëjëf jërëjëf olof nee na lu dagg lu ne moroom ma lay wër te itam bu picc sabee picc rek a koy tontu alxuraan ma wax lépp ne kullu xisbin bimaa ladayhim farixoon kenn ku ne kuréel ga nga bokk bu ñu yëngutoo nga yëngutu ndax ñoo lay bégal am na ñoo xam ne alxuraan leen di bégal ak daara ji ku leen ca naxit ñu nangu moo tax lu leen ca waaye woo ñu ci nga bokk jërëjëf. wa gharrada lil wisaal. Adama Ndione salaamaaleykum. mbokk mi dafa bëgg bokk nee na. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. bi. soxna Aminata maa ngi sant bu baax. ah ñaata maam ngay lim àgg ci gaydeel. man. Hmm. man day bu ma nee Aminata Lo. Hmm. nan laay waxaat danaa dem ba sama ma Tumbe Gaye door a dem ca Gaydeel. door dem ca Gaydeel. dama naan Aminata Lo sama baay Modou Xari la Modou Xari Mor Asta Mor Asta euh, Abdou Salam dem daal ba sama taat Tumbe doog a dem ca. door dem ca Gaydeel ndeysaan du ñu soree lool man tam bala maa def lu toll noonu àgg de. <laughs> bala maa def lu toll noonu de daal di daal di jege. daal di jege. man bu ma nee jeefaal màggat loo laay wax Mor Kodd Modou Joojo Maxtaar Binta Gaydeel. ah ah man de yow tamit <laughs> foofu da laay jaar dem ca Gaydel ah, jéefaala mu ah, jur ah, màggat loo ko jur Mor Kodd Modou Joojo Maxtaar Binta Gaydel. ay cay demal jàng say maam te ñëw comme loo nga sant kay. <laughs> soxna Aminta loo dem na maa ngi koy nuyu te di ko siyaare di nuyu waandaam yëpp ay ca. wa fi ayni lhawaani bila suruur. 88 628 98 98 33 841 22 33 salaamaaleykum. waaleykum salaam wa bisimilah bisimilah. Oustaz <laughs> kan la. Abdoulaye Mbaye Espagne. Abdoulaye Mbaye ah, sama waa ji yow ci loo lu tax léegi woowatoo ma lijjantee too ma sa yoon nekkatut ci man. Oustaz fàttewu ci ah, xarit léegi jaaxal nañu. réew mi comme xaritu gura rek. Ah, moo tax kon kay sama bos lax na bu yàgg. comme yow da ngaa nekk fu sedd man ngaa bañ a lax waaye man de lax naa. Abdoulaye ñu ngi siyaar bu baax. Abdoulaye euh, kii wan saar lañ tuddee benn ponk ci ponki lislaam yi. waaw sooratul xaj xaj ji. ban saar moo tàmbalee ci suura. sooratul anzalnaahaa wa xaj ji man nga ma. sooratul nuur. sooratul xaj ji man nga ma caa tuuti ma dégg. suratul xaj. Hmm. te ba boole te génn. ma kon baal ma cuq la. aywa. kutiba alayhi kutiba alayhi annahu man tawallaahu fa annahu hmm. yudilluhu wa yahdihi ila ila adaabi sair. yaa ayyuha nnaas in kuntum fi raybin. ah. ayca. min al baas fa inna xalaqnaakum min turaabin summa min nutfa suma min alaqa suma min mubuxatin mu alaqa wa xayre mu xalaqa li nubayyina lakum wa nuxrija fil arxaami ma nasaa ila ajalin musamma summa nuxrijukum tifla summa li tabluxu asuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzanil umri likay laa ya'lamu ba'da ilmin sayyi'a likay laa ya'lamu من بعد علم سيعى وترى الأرض سورة النحل بعد علم وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يفحص من في الخبر ومن الناس من يجادل في الله بخير علم wala huddan wala kitaabin muniir. jërëjëf Mbaye man ka ndekk jàmbaar nga. <laughs> Ah? waaw yow kay torkal la. <laughs> ay ca jërëjëf mbokk mi ñu dem. wa inni saa'irul aqsal asiri fa inni. mbokk mi daa bëgg a bokk asalaamualeykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa waaw kay jaxate. sëñ Modou jaxate waay. sëñ la Muxtaar maa ngi lay siyaar waay sëñ bi. jaxate. di siyaare Ajab mu ngi génn sànq. Mm-hmm, ndeysaan. sama góor ñu Ajab ak ndey ak ndey ko ma ma ci am ñoom sama yow ak Cheikh sama xarit maa ngi Cheikh bu baax waaye sama xarit. ndeysaan. di siyaare si moom sa Sall bu baax. Mm, ndeysaan. sama kàllaaf gëj naa koy dégg. ndeysaan. xam naa ba ni mu ngi ci yoon bi. waaw ndeysaan. ak caatu xam toog ak maam ak Kine Thiam ñëpp maa ngi leen di siyaar. ndeysaan. ndax man man naa bàyyi xam te ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp samay samay xel samay xel lañu. ndeysaan. maa ngi yàlla yàlla gàttal jàmm yàlla dogal leen jàmm bu baax a baax. ba Seydina Muhammad amiin amiin yaa yaa saa yi boo gaa yi ba pare ndax xaj la ak nu ak suratu noor rek. tontu rek. waaw ma saa saa saa yu ñu tuddee xaj léegi dama ne. waaw del tontu ci laaj yi te bañ a tee wax gaa yi tontu nañ ko ba pare kon kii ñëwati day jàpp ne jurut muy tontu. waaw kon nag kon nag suratu xaj man maa man maa man maa war a wax loolu man maa war a wax gaa yi tontu nañ ko ba pare. kon nag saa saa li nga laaj. waaw suratu xaj yi nga jàpp mooy sóoratu xajji. ak wan. ak sóoratu nuur. sóoratu nuur sóoratu xajji. doo ñu sóoratu ansan laa xabarat naa sóoratu xajji kay laa bëgg nga mosal ñu fi waa ji yemoon nga continuer. fi waa ji waaw mi ngi yemoon ci wa minan naasi man yujaadilu fillaahi bi xayri ilmin. wa rahmatullaahi wa barakaatuh. zaani ya'iq fi liyudilla an sabilillah. ah damaa a jëm comme yooyu dafa kale. fi dunya xizyun wa nusiquhu yawma alqiyaama. dalika bi ma xaddamat yadaaka wa anna allaha laysa bi zallaamin lil abid wa min annaasi man yabdullah ala fa in adaabahu xarun xayrun itmaana bii jërëjëf Baye Modou <laughs> tubarkàlla jërëjëf jërëjëf maa ngi koy di ko siyaare waaye juru xamtu waa ngi noonu ca Pikine la nekk mbokk mi daa bëgg a bokk asalaamaaleykum waaleykum salaam jàmbaar ji na nga def ah, Sadio Ka la Kër Massar Saliou Ka Sadio Ka Sadio na nga def waaye sëñ alhamdulilah. naka waa Kër Massar. ñu ngi yéen ngi waajal koor gi. waaw ñu ngi yàlla nañ ko fekkee. amiin amiin amiin. yow boo wooree xiif ngay gën a def wala mar. man su ma wooree xam naa mar a a sonal. mar bopp bi di xaw a metti tuuti. ah waaw waaw. nga xaw a taayal tuuti xaw a gëmmentu. waaw yow kay ñoo bokk lu ñuy dal. ñoo bokk teg teg lu ñuy dal. ñoo bokk lu ñuy nga dégg. wallaay ndeysaan wallaay jërëjëf. di nuyu ma Sala Mayoro nag. Mayoro ndeysaan. Ah, jërëjëf jërëjëf. waaw xam nga sama deuxième tur yi Yoro la. jërëjëf ndeysaan sama turandoo la. ndeysaan. Ah, waaw di nuyu waa Kamp yëpp. jërëjëf. waaw laaj bi de moom comme ni nga wax ne suratul la. suratul xajji. waaw. beneen bi beneen bi saar yu tàmbalee ci suratu mooy wan. boobu suratu nuur la. suratu nuur. waaw suratu anzalnaaha suratu xajj bi anzalnaaha wa faradnaa fiihaa wa anzalnaa fiihaa aayaatin bayyinaatin la'allakum tadhakkarun aywa nañ jëm ci suratu xajj biñ nekkoon ñu dextu ba ci kanam ah? man kaana yazunnu an lan yanzurahu llahu fi dunya wal axira falyan falyamdud bi sababi ila sama summa li yaqtax summa li yaqtax falyanzur hal yushibanna kaydu maa yuqis eh, wa kadalika anzalnahu ayatin bayinatin wa anna allaha yahdi man yurid inna alladina amanu walladina haadu wasaabiina wannazara walmajuusa walladina asraku inna allaha yafsilu baynahum yowma alqiyamati inna allaha ala kulli shay'in shahid waaw alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi samawati wa man fi l ardi walsamsu walxamaru walnujuumu waljibalu walsajaru waddawaabu wa kasiru min annaasi wa kasirun xaq alayhi alazab wa man yuxini llahu fama lahu min mukrim inna allaha yafalu ma yacha <laughs> jërëjëf Sadio <laughs> jërëjëf waay jërëjëf sëñ Sadio ñu ngi koy nuyu te di ko siyaare ñe wala bokk ñu dem. وأطل البدر مكسوفا غريبا 88 628 98 98 aj Malick Maodo jërëjëf dégg naa yow ni nga firee inna allaha yafalu ma yasawu kon noonu nga ko dégg baax tubarkalla am na solo duma ci sax werante nag <laughs> ñu jaajëfal ko baax jaajëfal mbokk yi ànd ak ñun jotaay bi yëpp wéy di leen xaar ci ngeen indil ñu seen tontu ci ñaari laaj yi ngeen gaaral tey laaj bu njëkk bi mooy saar wi nga xamante ne dañ ko tudde benn ponk ci ponk lislaam yi di juróom beneen laaj bi ngeen wax ma saar wi nga xam ne sóoratulu xam nga saar buñ koy wax mooy suurat mm, après man la suurat bi nga xam ne sóoratu la tàmbulee wan la loolu laay def ñu dugaat ci ruqi alxuraan yi ay ca fawqa alxudud bila bila sakan mbokk mi nee na ndax an nuur day am ci koor gi mooy jotaay bi ñu doon amal ci yoor yoor yii bis bu set ci koor gi doon fi wuutu ki nga xam ne mooy Nicolas ci ndékki li ñoo ngi ci am yaakaar incha allahu taala donte woon nag euh, programme koor gi fii gaarala guñ ko waaye ñu ngi ci am yaakaar incha allah 88 628 foofu ngeen di jaar ngir bokk ci jotaay bi indi seeni tontu ci laaj yi axsanul anaas yi te ñuy wét li ñu déglu leen sëñ Abo Fall faj aajo maa ngi lay nuyu baax di la siyaare di siyaar sëñ Abo xasida moom Serigne Moustapha xasida moom Cheikh Abdoulahi borom dër bi moom Ahmadu والسم يسبح في اللبن والسم يسبح في اللبن mbokk yi bàyyi xel xamtu ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ni ngeen àndeek ñun ci diirub xamtu bañ ko dooreek léegi léegi mu amub diir alsaan booy fàttaliku xamtu weeru koor lañ ko dooroon bëggoon mu yem ci koor gi yitte ju ko donga daara yi joxoon moo tax ñu wéyal ko ba jagleel leen ko ajjuma ju jot booba ba ba bàyyiwu leen fu ngeen ubbee ñun ak yéen li gars yi naan yaay bañ waaye ñun ñooy dem ba bañ rek jóg waaye ñun ak yéen la jërë ngeen jëf أن القبيح هو الحسن ما حيلتي في من bu jamono ji tollee fii ci fan yi ñu toll waajtaayu weeru koor lay doon ñu koy waaj ñëpp te xàmmee li xew yëg-yëg lañ koy waaje ak mbég ak tuubi bàkkaar ñaan yàlla fekke ko mbokk mi da cee bëgg bokk salaamaaleykum. waaleykum salaam wa def. ku baax si waaw ku baax kee baax. Jili Gueye ñu wootee Ndar. Jili naka waa Ndar. ñu ngi rek xam naa ne léegi léegi kër yi di joxe bi nga sama ñetteelu appel yàlla xam na ko. ah moo ne Jili nag bi nga wootee bi nga duggee benn la bii paa. waaw waaw bii bii kay daanaka damaa bàyyi. waaw bii moom xam naa li xew kon kay mi ngoog <laughs> jiili daf ma ko bëggoon a jiiñ waaye finalement xam naa ne <laughs> ndox maa bëriwu doon yal na yàlla may la crédit bu baree baree baree bëri ba boo cappee rek fi mu ne kenn nekkul ci ligne bi mi ngi nii boo wootee rek daal dugg jiili kon ma xaar la 88 628 98 98 mbokk mi daa bëgg a bokk salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. Babacar Diakhoumpa buntu bi ñu ubbi mooy 88 628 98 98 33 841 22 33 nuyul ma waata ngeej. xam naa buñ ne ma woon bul jël kenn ci fixe bi euh, doy na sëkk ci ki may wattu boo déggee Babacar Diakhoumpa mu wax rek bay boon nga fàqu yat xam ne moom ci fixe bi la jaar. تدرك صاحبي إن كان بالمكر xamtu maa ngi koy nuyu baax baax te ko siyaar sëñ xam sëñ Ousmane te la ndokkeel weeru koor jot mooy ñëw toog ci conférence yi boo fuddutoo rek mun la oustaz da ngaa war a waaw mu ne kaa ñu dem ma yóbbu la yal na yàlla barkeelal la salaamaaleykum salaamaaleykum salaam sëñ Mbacke ñu ngi siyaar jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar waaw man la Pape Ba waaw sama dëkk Kébémer nekk Cambérène sofëru camion. naka camion bi. waaw ñu ngi góorgóorlu di gërëm yàlla. jërëjëf loolu baax na. sëñ Mbacke damaa a topp nag. ndeysaan. waaw di dégg émission kon dab nga ma tey. waaw wax dëgg yàlla am naa mbégte lool lool lool lool lool. jërëjëf jërëjëf. njàng mi njàng mi nag moo soriwul. ndeysaan. waaw waaw. jërëjëf. waaw dañ siyaar baax rek di siyaar rek. jërëjëf jërëjëf. di siyaar waa yëpp. jërëjëf Ba jërëjëf. ak képp ku di Mbawar Mbawar. am naa fay ñu jaay sama ñu taala ja ma yoroon daara ja. waaw Baye Taala xam naa ko baax nga dellu kër. sama ñu la ak ñoom Binto ak Maxtaar ak ah, Ahmed doomam ak ñëpp samay mbokk lañu. la dëgg la dëgg la dëgg la Baye maa ngi koy nuyu baax baax waa kër maam Xaadija yëpp. waaw kay jërëjëf. jëf jërëjëf ndeysaan ñoo ngi leen nuyu te di leen siyaare di nuyu waa Kébémer yëpp yaa Ndey Fall salaamaaleykum sëñ Pape Dia ñoo ngi lay nuyu tey di la ndokkeel sama nijaay Pape Dia yaa ma indi woon Dakar dégg nga. ñaar fukki minute ak juróom moo tegu ci ñeenti waxtu mbokk mi daa bëgg a ci jotaay bi salaamaaleykum. waaleykum salaam kan la. Birahim Ndiaye. Birahim na nga def. ah maa ngi lay nuyu. jàmm baax. ana Seydina Alioune. jàmm baax baa mi ngi woote. waaw mi ngi woote waaw mi baax. baax na ne kon ñoo koy xaar ca koor ga. waaw mu ngi lay xaar waaw incha allah. baa yaa ngi ci jàmm. suñu jàmm baax. Mbaye moom tam. jërëjëf jërëjëf. waaw Mate bi ñëpp a ngi nañ la ne gars yi moom maa leen raw man kay maay waaj rek waaye incha allah. Ah, waaw koor gi ci koor gi. kon nga def benn ziar bu gàtt rek ñëw ziar si leen. bu soobee yàlla dinaa ko def séntu leen ma ci fan yi ah waaw allah bu émission bi jeexee rek woo ma. gars yi bare bu ñu nee naan Anta waajo ah mu ñëw ma ne dana ñëw de. wallaay dama faa dama faa gëj rek waaye danaa fa ñëw. waaw ñu ngi ziar gars yëpp nag. jërëjëf jërëjëf Birahim. dañ kontaan ci wàcc nañ wàccal koor gi ñun ñëpp. jërëjëf jërëjëf. ah ni ñu daan doxalee rek ñu doxee ko noonu. jërëjëf. yàlla daa mel ne koor gi di njaay mi dana xaw a kii tuuti. waaw dana xaw a tane tuuti quoi fan ah, fan yu rek lay ñot ñoti waaw gaa yi jënd tàndar ma jënd tuuti soble. waaw jënd ay ñamatoos ak ay ginaar. waaw incha ah, leen jege ndogu. waaw. tubarkalla tubarkalla. incha allah jërëjëf leen lay wootee maa ngi koy nuyu Alaaji Mbaye nga Castor. yaa xudsu laa tabki inna nii salaamaaleykum. waaleykum salaam wa bisimilah waaw. ñoo ngi delloo siyaar yaaram. alhamdulilah kan la. Xaadim Mbay. Xaadim Mbay. waaw ah. Xaadim na def. wallaay yàlla baax la. sëñ Xaadim yi yàq koor mën nga ma cee wax ñaar. waaw. ban ak ban. lekk de bokkoon na lekk. ak naan. ko wala lekk gu man doon rek. lekk te tey ko. lekk yàq koor. ak naan te tey ko. ak lan. sëñ xaadim jeexal nga sëñ xaadim mbay dem na ñu ngi koy nuyu te di ko siyaare ci 88 628 98 98 33 841 22 33 قدس لا yaa xurtu laa tabki fadaytuki innani sëñ Modou Astuloo nekk foofu ci Noara Italia ah, ñoo ngi koy nuyu baax a baax te di ko siyaare sëñ Modou Alsaan indi nuyoo bi ñoo ngi lay nuyu te di la siyaar di nuyu waa Italie yëpp. mbokkum ndaam nga kon sëñ Modou Astou ñoo bokk kon gaydeel ja wala boog daam Isa salaamaaleykum. aleykum salaam tey waa Lóyeen yi laay sagale noonu yaaram na nga def. kan la. daam Mbuub. daam Mbuub. ak wuub de li leen wutale bëriwut. <laughs> mbuub ak wuub. ak mbuub. waaw loolu de am na. xam nga wuub moom doxut. wuub moom lu muy signifié. wuub. Ah. xam naa maanaam saaru jébaane la daal. ah boobu da doy na xam nga jéebaane mooy lan ci olof. jé. jéebaane. jéebaane. waaw ñi naan nga naan ñu sëñ bi bu ma jéebaane nag yow itam. mooy maanaam bu bu bu ma bu ma bu ma siiwal ci nit ñi daal ci ni ko dégg. mooy koo xam ne du doon nëbbatu ñu nar koo nu mu tuddati. ne bu ma jéebaane ñu nar koo siiwal. te xam nga daa am biral. biral. mooy wax ca kaw. am yuuxu. am yuuxu. am ŋàlleeku. <laughs> <laughs> bu dee ciy wax mooy kuy wax ndànk. <laughs> wala kuy ngalalali wala kuy ratatati. <laughs> yooyu yëpp ay xeeti wax la di. ay xeeti wax la de olof de day day bëgg a laaf. xam nga lan mooy ratatati. ratatati. waa dinaa koy dégg nag mooy xaw ma ko bu baax. xam nga lan mooy ngalalali. <laughs> sëñ Ba maa ngi siyaar. <laughs> mbuub mbuub sëñ daam bisimilah. <laughs> lépp jàmm. boo kon boo coupé nga gëstu ji yooyu. yu neexal nga ko waay jërëjëf. waaw maa maa ngi lay siyaar baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. di jotaay bi. jërëjëf jërëjëf. di siyaar mbokk yi géejawaay yi. ndeysaan. maa ngi lay woowee Fass Mbaaw nii. Fass Mbaaw naka waaw Fass Mbaaw. ñu ngi sant bu baax a baax. ndeysaan. alhamdulilah maa ngi siyaar waa Yëmbal yëpp. jërëjëf yow nooy waajale koor gi fi mu ne. koor gi. Hmm. ah xanaa jéem ko jéem ko kii rek bu baax a baax. ndeysaan. waaw yàlla nañ ko fekkee jëm ci daal dooleeku jëm ci borom bi bu baax. noo koy defee da nga ci jàng alxuraan yow daan nga ci wàccee kaamil wala du ko mat. waaw daa daanaa ci wàccee nag donte ñaar ba ñett. donte ñaar ba ñett yoo xam da nga ko jàng ci koor gi. doon naa ko jéem daal. macha allah yal na ko yàlla dugalaat. waaw incha allah. te nga ñaanal ma ci maag waa équipe bu xamtu yëpp. waaw ñu ngi ñu ngi ñaanal ñëpp. ndeysaan. waaw yal na yàlla gën a doole sutura bu baax. jërëjëf jërëjëf. baax na dama doon ziar rek. jërëjëf bëgg nañ lool. waaw yal na yàlla defar lépp daal incha allah. amiin amiin yaa rabbal alamin. jërëjëf si la ñoo ngi bëgg ci yow ci sa dugg bu am solo boobu te di la ndokkeel. bala waaye kii salaam. waaw kan la. Xaadim Mbaye. Xaadim Mbaye. mbayeen bi yow ci loo nekk. du yaa dagg léegi. waaw. waaw kay Xaadim. Euh, laaj bi ma laaj tey de mooy saar wi nga xamante ne dañ ko tudde benn ponk ci lislaam euh, sooratul xaj ji. sooratul xaj saar wi nga xamante ne dafa tàmbalee ci suurat. sooratul nuur. sooratul nuur. Hmm. sooratul xaj de dem naa ba agsi ci inna laa yafalu maa man nga ma caa dolli tuuti. xamoon naa ci tuuti de. ay ca haadaani xasmaani. haadaani xasmaani ixtasamu fi rabbihim falladiina kafaruu qutti'at lahum siyaabun min naarin yusabbu min fawqi ru'uusihim al-hamiim. ndeysaan. yas'aru bihi maa fi butuunihim wal juluud wa lahum maqaami'u min hadiid. kullamaa araaduu an yaxrujuu minhaa min xammin u'iduu fiihaa. wa dhuuquu 'adaabal hariiq. inna Allaaha yudxilu alladiina aamanuu wa 'amiluu saalihaat. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط المستقيم إلى صراط الحميد حميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت allaa tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya lit-taa'ifiina wal-qaa'imiin wa addin fi nnaasi bil-hajji yaatuuka rijaalan wa 'alaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajjin 'amiiq wa tahhir baytiya lit-taa'ifiina wal-qaa'imiin warrukaan sujuud baax na jërëjëf Mbaye jërëjëf bég naa ci sa dugg bi te di la ndokkeel tubarkal di békki moom bu baax a baax tey di békki mboolem ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñun jotaay bi ixwata diin békki moom bu baax a baax alquranul karim a ngi noonu xëy na bala maa daaneel suratul ajji dana jeex mbokk mi ñëw laay àndal ñu mbëmbëstal ko ak si nga ci aj màkk gaag yi nga xam ne moo ci aju wa addin fi nnaasi bil xajji yatuuka rijaala wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq li yashadu manaafi'a lahum wa yaskuru sma allahi fi fi ayaamin maalumatin ala ma rasaqahum min baymati al-an'am kulu minha wat'imu al-baa'is al-faqir summa liyaqdu tafasahum wal yuufu nuzurahum wal yatawaffaw bil bayti al-'atiq fattaqullaha was'adu lil ma'ali dhalika wa man yu'azzim 'urumati llah fa huwa khayrun lahu 'inda rabbih uhillat lakum al-an'am illa ma yudla 'alaykum fajtanibu ar-rijsa min al-awthani wajtanibu qawla as-su'u غير بذل وعناء على المجدين 88 628 98 98 téere bi yàlla baa ngi noonu suratul xajji kon mboom la mbokk yi song ak man ndax nee nañ mooy saar yu ñu tudde benn ponk ci lislaam ak seegul nañ ci aaya 31 ci saar wi hunafa lillahi xayra musrikina bi wa man yusrik billahi fa ka annama xarra min assama fa taqtafu حينما يعتري الشجاع الذهول ربما تخرج الحياة 88 628 98 98 33 841 22 33 mooy yoon wi الجبان المنايا حينما يعتري الشجاع الذهول ربما تخرج الحياة شجاعا جده لا يعد في من يقول إخوة الدين ليس فينا ملول فاصبروا هذه الرزايا تزول إخوة الدين لا تهاب المنايا فهي والله ليس عنكم تحول إخوة الدين وإذا allo asalaamaaleykum. bisimilah yaaram yëkkatil kàddu gi. asalaamaaleykum. salaam wa rahmatullah. yàlla nangu siyaar. la. man la Cheikh. Cheikh na waaw Cheikh yaa ma woowoon démb ci guddi. taalif bi taalif ban. nga ah, yaa taalifoon si defem démb. loo waxoon. bëgg a dégg diine jàppal kër hmm. eh, tey daal xam nga lan moo nekk sama xel. xam luy joote. mooy lan yaaram. joote de ah xam nga daa am jote ak joote. waaw joote nag moom ne waaye olof danaan jote mooy jiitu joote. waaw jote mooy jiitu joote lan moo wutale jote ak joote. jote ak joote ñaar ñu jubóodikoo ñooy jote léeg-léeg nit ne waaye lu ma jotee yow ba nga may wax lii ah est-ce que dañoo jubóodiku wala jote mooy séq dara rek séq dara kon <laughs> séq dara ah ndeysaan doo ko réccu de jërëjëf <laughs> jërëjëf kàddu gee suufe lool jërëjëf jërëjëf wa shukran jërëjëf ak yow anta fi zaman al-amalati kas-sa'ir anta al-humam taqud fi sijn al-khiyanat as-suqur adri bi annaka mut'ab lakinnaka al-layth al-hasur adri bi annaka munhak lakinnaka al-amal al-kabir adri bi annaka waahin lakinnaka al-badr al-munir adri bi annaka wathiq anna an-nihayata lis-sabur أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير أدري بأنك واهن أن النهاية للصبور دارت نفوس بالصغار وأنت بالكبرى تدور فاهنأ بسجنك وامتشر سيف النكاية للكفور متوشحا بالعزم قد نام الأراذل في الخدور وقف الزمان أمام سجنك يحتفي بدم النثور متوشحا صالحا بالعزم قد نام الأراذل في الخدور وقف الزمان أمام سجنك يحتفي leen tax ma wooy waay أنت الهمام أنت الهمام ca kaw rek ca kanam antal humaam antal humaam mbokk mi daa bëgg a bokk ñu dalal ko salaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullah. yaaram bi na nga def. mag buur la ancien animateur rajo Dunia. ah na nga def mag buur la. a ngi sant yàlla bu baax a baax waaw waaw. ndeysaan mag de buur la. wolof yi damaa neex lool Mbacke Sylla. ndeysaan ah, ab taximaan nga. allo. waaw allo sëñ taximaan. Ah. allo allo. taxaw fii oh, sa téléphone bi am na loo ci bés am na luy kii kii ji. Euh, waaw xam naa téléphone taximaan. téléphone taximaan ñu la ñu kon baax na waaye bëgg naa. xamal xamal lool jërëjëf mag buur la. waaw diggante jote nag ak joote bëggoon nañ caa sànni suñuy kàddu rek téléphone bi may nañu ko. ay ca sànni ko ci. Hmm? ma ne joote. joote waaw. waaw joote mooy loo xamante ni bii da koy yitteel nit. da koy. yittewoo yittewoo. yittewoo waaw. waaw. léegi nag maanaam la wolof wax ne jote balaa joote. jote balaa joote. waaw maanaam nañu nañu séq dara bala maa malay malay wax sama soxla waaw moom moom laa ne nañ ko séq bala maa soxlaal mu ngoog soxla te jërëjëf <laughs> jërëjëf mag buur la bég naa ci yow te di la ndokkeel tey nuyu mag ñëpp mag de moom buur la yaa ko wax أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أحزان mbokk mi daa bëgga a bokk salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw yaaram na nga def. waaye sant bu baax a baax. ah kay. jërëjëf jërëjëf. bu baax a baax ci émission bi. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf lu macha allah kan la. man la Cheikh Fall Medina. Cheikh Fall naka waa Medina Cheikh. alhamdulilah Cheikh Fall man nga maa wax koor fan lañ koy yéenee. koor. waaw boo yéenee nooy def. boo yéenee yéene woor weer bi yëpp. da ngay xanaa xanaa koor de bëriwul ay farata sañ Cheikh. koor gi. ah. allo danaa ci ñëw ci ay bis gi di ñëw insha allah bu boobaa dana fekk ñu ne ca yàlla nañ ko fekkee 88 628 98 98 ya wayha qalbi ma dahaki daruki almaymun adhaka almaqabir kullu juz'in minki bahrun min dima'in kullu جزء منك مهدوم المنابر تغرس الرمح الدنيئة في سطور العز والأمجاد ترمقها البصائر كم هوت منا حصول غير أن عنا نفتح الأفواه في وجه التآمر تورث الرمح الدنيئة في سطور 88 628 98 98 33 841 22 33 منا حصول غير أن ñoo ngi leen di ndokkeel di ànd jotaay bi ahsanul anaas yi tey riim noonu ci suuf ngeen man ñoo dab comme ne kee di def di rëppatal di ñëw màggatandu ko salaama génn na waaye du ko yàq daal dëpp waaye dana dellu si التاريخ لا تعتب علينا مجدنا الموؤود مبحوح الحنان. asalaamaaleykum allo salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum bisimilah ku baax ki. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. alhamdulilah kan la. ku baax ki. ku baax ki ku mu man di doon dem na ñu ngi koy jaajëfal te di ko xaaraat gannaaw ba mu ko doon jéem a ñuqatu ngir xam mooy kan dalal ko ci jotaay bi mu indi ay tontoom ci suñ laaj yi waaye mbirum téléphone la ak ay benki ñeenkeem ak i baj-bajam moo tax mbokk mi ne yollu waaye keneen ñëw na salaamaaleykum aleykum salaam bi ci la waaw jàmm rek damaa duggoon rek doon wax gars yi nañ nañ gën a dugg. waaw émission yu mel nii moom waruñoo am benn espace bu une minute boo xam ne kenn duggut. ndeysaan. laa daal noonu daal nga ko gisee. jërëjëf waaw jërëjëf naa. ndeysaan yéen jaa foor waaye gaa yaa ngi nii di fëgg kenn ngi nii salaamaaleykum kooku génn na waaye keneen a ngi nii kon salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi. Ousmane Cissé naka waa Mbirkilane. naka foofu bàyyi yéen ci jàmm. wallaay maa ngi ci xanaa dëkk bu neex la. mbir ki rajo bi leer na fi. lool lool ah, ñoo ngi nuyu ñëpp sama benn xarit bu tudd Malick Guèye foofu la dëkk. dëgg la dëgg la dëgg la maa ngi koy nuyu la dëgg la ci la kontaan ci lu bare lu bare ba dañu teewlu waaye duñ dugg am na lu ñu dugg bëri moom. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaye ñoo ngi teewlu lu bare bare bëri. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. kontaan ci ñu ngi ko seq ak Oustaz Alioune ak Oustaz Alioune Mbaye yëpp. ndeysaan jërëjëf jërëjëf. moom daal jàmm ci suñu yàlla yàlla. kooku génn na ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax te di ko ndokkeel di bëgg ci ni mu àndee ak ñun jotaay bi te di ko jaajëfal bu baax a baax di xaar keneen ci ginnaawam ci 88 628 98 98 lu ko jiitu ma dégtal la public yi ñëw incha allah. jërëjëf commercial ñoo ngi leen di jaajëfal te di leen ndokkeel di woo sponsor yëpp nag ci jotaay bi rawatina ci weeru koor gi nga xam ne moom lañ mal nga xam ne bis bu yàlla sàkk 16h ba 17h war nañoo janoo ak nga xam ne yor nañ lu ñuy yëgle mu siiw ñoo ngi leen ci woo di leen tàllal loxo liggéey waaye di leen ci ndokeel bu baax a baax auditeur a ngi nii di rëppatal di ñëw ñu dalal ko salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa bismillah bismillah man la Ndiaye Gaye Sangalkam. soxna Ndiaye Gaye. waaw na nga def. naka waa Sangalkam. maa ngi kontaan ci émission bi. ana imaam Ali Ba. waaw imaam Ali Ba maa ngi xam naa ko bu baax. maa ngi koy ak docteur Aline Gadiaga. xam naa leen bu baax. ndeysaan. waaw di kontaan ci émission bi rek. jërëjëf jërëjëf chaque àjjuma maa ngi leen di jërëjëf su ma déggee ngay wax ba ak ni ngay jamoo alxuraan bi. waaw may neex sama xol. nga naan bu ma yëgoon kii wala kii nga. bëgg naa <laughs> wax dëgg yàlla li ma jàngoon si nasaraan bi yëpp su ma sañoon tey. Hmm. mu nekk alxuraan. <laughs> mais man mi pourtant man mi damaa bëgg a weccoo jox la benn xaaj ah? bi nga jox ma ko diplôme man daal ab BFM ah. dong laa bëgg. ab defee waaw léegi man de ma yore soo bëggee ñëw jël. man ma li man man alxuraan ba ma soxal fi mu toll ma jox la ma jox la naasi ba kër fi nga jox ma ab defee. <laughs> Eh, ma ko mënoon. <laughs> ndeysaan. du ma ko mënoon. li eh. ma di am ma bi ma yore. Eh. maa ngi bu baax a baax ban saara nga ci toll. Ah, ah wan saara nga toll ci am ma bi. am ma bi. Hmm. maa ngi ciy kii ma xool. kan bi. fàtte nga ko saar bi nga toll. wasamaa isaatul buruj laa ah, wasamaa isaatul mooy sóorat <laughs> waaw ah, mokk kii mën nga koo kii doo ci barkeelu tuuti. Ah. ndax xam nga jigéen ñi lay dégg xam ne yéen jàmbaar ngeen wala ma wàccal la ba ci suuf rek ma jox la sa bis ma rabbikal aala waaw al aala auzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sabbi isma rabbikal aala allazi xalaqa fa sawaa wallazi xadara fa hada wallazi axrajan marha wa jaalan xuzaa an axwa sa nuqri uka falaatan sa ilaa macha allah innahu yaxramu jaxramu <laughs> <laughs> <laughs> maa yaxfaa. xaaral ma daanu jël sax. xaaral ma daanu allah macha allah. jërëjëf maa ngi bëgg bëgg naa de wax dëgg yàlla. am na solo nii de baax na bul. boo bàyyiwul rek dana ñëw. ah maa ngi ci de. ñu dong la yow ñu ne ñaata de am naa benn jigéen bu tudd Soxna Ana Dieng nangoo ba léegi su ma ko nee foo yem rek mu ne bàyyil noonu. <laughs> maa ngi maa ngi ci moom. ah yow kay jàmbaar yaa leen raw boo seen. maa ngi nab nabi daal. ndeysaan <laughs> jërëjëf jërëjëf. ñoo ngi lay nuyu te di la siyaar ñoo ngi ci catu jotaay bi. قد حواك بعطفه أم لها من مهجتي عرفاني أنا لست أدري هل رضعت حليبها am qad saqatka al-izza bil-iman bil-iman yi 88 628 98 98 ñoo ngi ci jotul jotaay bi laajoon la ñaari laaj mooy saar bi nga xam ne benn ponk luñ ko tuddee ci ponki lislaam yi saar woowu wumu olof day wax wumu di wax wan la di wax ban la kon nag man wumu gi laa jël saar woowu wumu ci wala saar boobu ban la bu bëggee wax ban lan la day ciy jëfandikoo boobu bu bëggee wax wumu day jëfandikoo woowu danaan saar woowu mën naa wax bu boobaa bu waxee saar boobu mën naa wax bu mu waxee saar woowu du wax bu mu wu mu lay wax kon wu wu gee moo koy feelu bu gee moo koy feelu ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax baax kenn ñi nii bëgg a bokk si salaamaaleykum waaleykum si waaw soxna si man la soxna abi soxna abi na def soxna abi ay waay soxna abi dem na <laughs> bu doon daa samp xelam da ñaan àbb na njool mi soxna abi àbb na njool mi jërëjëf ñu ngi koy xaaraat di ko ndokkeel di bég ci duggam googu soxna yi jërëjëf jannati war ridwani man qatala al a'daa min ajli dinillahi min ajli dinillahi faaraxtal kara 88 628 98 98 33 841 22 33 كل معذب من أرض أفغان من أرض mbokk dafa bëgg a bokk asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. Oustaz Mbacké Sylla. waaw kan la. kii Ibrahima Maroon. Ibrahima Maroon. Ah, Maroon. ñu lay mel ni Maroon boo ko rek muy Maroon. waaw mu ngoog noonu la demee nag. Euh, maroon mooy lan ci olof. maroon. non maroon maroon naa. maroon. maroon. maroon. maroon naa naan daal maanaam. ah maroon naa kon naan a ciy topp. jeex na mu ngoog. kon mar li koy faj mooy naan. naan dong. xiif nag lu koy faj. xanaa lekk. Ah, lekk lan moo wutale regg ak suur. ak suur ak fër. rek për moom mooy e lekk lopp. mooy e lekk lopp rek nag. rek itam mooy mooy rek. <laughs> dem na ñu ngi koy jaajëfal baax sëñ Morone. di ko ndokkeel di xaar keneen ci ginnaawam sëñ Morone juróomaa teqalteel loolu waaye. ولا تألم من الصمت المرير ولا تأسف على نكران صعب ولا تألم من الصمت المرير لكم سافرت في الدنيا وحيدا غريبا في الحياة بلا خمير لكم xamu ko mooy njëkk a produire mais dana am kaset bu neex waxidan alsaan dañoo nekkoon nag di temps ba fuural di am nga xam da ngay fay fukki dërëm ñaan di ñu kaas nag bu ko defee ñu kii nag ma ànd ak benn xarit ñu ne dañuy rab nag keroog maa doon rab jox ma rek ma tàmbali dinaa la dinaa la wax li ma doon rob lu ngeen di reeta robaguma ko wa kam aanaytu min dulmin tidaadi maa ngi nuyu sama gaa yooyu baare gee xaadim gee xam naa ak si di soxna ñoo ñoo doon yor kee kee moo yoroon kii ki naan gung gung gung loolu ma lan kookoo ma yoraloon loolu jox ma rek ma ñëw ni leen dëkk bi dafa tàngaa wa kam min dulmin tidaadi boole ñàngaa ala garadin wa min الفتور فمابعة المبادئ للتباهي kuy nuyu di siyaare Adam Mbuub bu baax bi foofu ci centre culturel bu Diourbel moom xam na li may wax ñoo àndoon dem foofee noonee mu doon ma def loo yooyee maa ngi koy nuyu moom damaa rëcc rek jërëjëf salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Mbacke. waaw bisimilah seex bi. ñu ngi laaj yaa. ñëw fekk li fekk may nett li ba ma nekkee rapport. <laughs> saay loolu waroon naa neex waroon naa neex de. waaw neexoon sama xel a ci dem man daal bañ ma téyelee boobu fuural boo ñëwee dangay jox fukki dërëm. Ah. ñu may la dédicace daal lay limal ñi ñu ko may ngeen dugg fecc ñun nag bi ñu ñëwee dañ dañoo bëgg rab au lieu que ñu ñaan dédicace mais dañu fay rab. ah da ñu téyel ma rek naan buk buk buk ma commencé nag <laughs> naan dëkk bi dafa tànga boole ñàngaa. <laughs> ay ca bisimilah ñëwal ci ñëwal ci laaj bi. <laughs> Hmm? Ah. allo. allo. waaw. oui Ahmed Dia ñoo ngi lay nuyu te di la ziar baax a baax na ngeen def ak coono. sant alhamdulilah. tubaarakàlla. da ngeen jàmm baax. jërëjëf sant alhamdulilah. ndeysaan. ak Maodo. jërëjëf ñu ngi lay fay bu baax. ñu leen yàlla yàlla yomb xam. amin yaa rabbal alamin Ahmad Dia ñu ngi koy nuyu dafa mel ne ak nañ ci catul jotaay bi ñeenti simili moo ñu teree jeexal ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare auditeur bi laay jël te tàggatoo xay na du ci yàgg salaamaaleykum. maaleykum salaam damay wax ñaari baat rek. waaw. xanaa boobu MC Mbacke la. waaw booba yooyu la woon. <laughs> xam nga sëñ bi maanaam amuk jot baaxut. lu ne da nga ci dugg rek kooku dem na beneen yoon ma nettali leen leneen li tey foofu rek laay yomb للعشق الأثير بشعر ظل ظاهره التزاما وباطنه وباطنهم jërë ngeen jëf ci ànd ak ngeen àndoon ak ñun ci jotaay bi ñaari laaj yi ngeen indi loon benn bi mooy sóoratu xaj ji xam nga ne aj màkka benn ponk la ci ponk lislaam yi aw saara ngi noonu tudd na ko ci alquranul karim di sóoratu xaj ji am na saar woo xam ne sóoratu la tàmbalee mooy sóoratu suuratu nuur suuratun anzalnaaha la tàmbulee sant nañ leen gërëm leen jaajëfal leen bu baax a baax ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu nangul barkeelal ñu suñu dund waaye itam may ñu ñu dund ba àgg ca koor gaak jàmm tam may ñu ñu weesu ko tam defal ñu njéggalu bàkkaar ni nga xamante ne loolu la fi koor di wutsee may ñu ñu bokk ci am wér gu ñu ko mànge ba mu jeex waaye itam defal ñu xéewal yoo xam ne dina jàppandal ndogo yi jàppandil xëdd yi jàppandil paas yi jàppandil poos yi jàppandil yëpp rek tubarkàlla xam naa jibi loolu dana baax ci yow euh, jàmm ko mbokk yi kon tàggu nañ leen Adama Ndione laa leen di bàyyi ak ci yaatalum xibaar yi ci wolof ànd ak ci wax sa ak yi ci aju 22h30 Oustaz Aline Mbaye ak gont si laa fii dellu si waat ci almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.